ba tax na ba tax na ci loolu Serigne Saliou Thioune nee na képp ku àndal sa boppam ci maa ngi soññi mbokki taalibe nee na mi ngi soññi mbokki taalibe ñu sàmm seenu taalibe ñu sàmm suñu sew sew nee na ak daa am sew sew ak taalibe daa am sew sew ak taalibe daa am sew sew dana delloo buut ca Boy Boy. ci njàngaleem Serigne Touba. ci njàngaleem Serigne Touba. waaw doon ay taalibe. nee na doon ay taalibe. loolu rek moo doon war. ndax suñu suñu sang ba ci loolu rek la war. maa ngi leen di sant. bi nag. nee na mbég mi moom moom foo ko takk weesu na. sëñ maa ngi sant journaliste yi. nee na mi ngi gërëm journaliste yi. booba ba tey ñoom tamit. booba ba tey ñu ngi ci. ñu ngi ci maa ngi leen di gërëm. di leen masawu coono. te di leen def sama invité d'honneur. nee na invité de journaliste yi invité d'honneur. nee na Mbacke di invité de journaliste yëpp. maa ngi leen di sant. nee na mi ngi leen di sant. maa ngi leen di gërëm. maa ngi sant waa Jannatul Maxwa. ma wax ba eggal te ñooñu. lu ma leen beral ak nuyoo mbokki taalibe yi réunion yii ci njiitul sëriñ Babacar Mbaye maa ngi leen di sant boobaak léegi lii rek lañ ko ànd ak Touba ñoo ma fi nekkal te nekk fi ci ak taalum taalum bi bu rafet sax loolu day maa ngi leen ciy sant te di ci gën a ñaar yaa ngeen jëf maa ngi dégg say ñaan ñu teewee ko dañu gën te sëriñ bi defoon ñu gën dàqalu leen jërëjëf yàlla ko fi yàgg déwén yàlla ko fi yàgg déwén yàlla ko fi yàgg déwén sëriñ Touba nee na digg na nga xam ne moom la sëriñ Touba jox sant le ko sëriñ Touba sëriñ Touba ci loolu yi ci loolu yi ci la ñu nekk ci la ñu nekk lii ngeen fi gis nag lii ngeen fi gis nag kéemaanu sëriñ bi kéemaanu sëriñ bi ca la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 lim naa ñëpp. nee na lim na ñëpp. dañ leen ko ci ay nag. ci ay nag. moom moo ko wutu ji woon. moom moo ko wutu woon. sonn ci. sonn ci. def ci lim ci def. maa ngi seereel kanamu àdduna. dañ naa yu ñu seereel ci kanamu àdduna. am na sama gërëm. mais maa ngi leen di sant bu baax ngi leen di sant. nee na ngi. nee na bàyyi mu